parce que yéen da ngeen tàmm victoire 2009 ba léegi bu ñëw ngeen yenu gaay ba ci kaw teg ci suuf pulaar nag nee danaa ko jéem a tekki ci wolof ñande foofu baaba li maa woon dimanche noonu mu doole ak bu jot ñu ne bàyyi daan ah dina am binaa dimanche boo xam ne